lua jàpp na bee ala kulu fatle yaay fadala falo sa jaañu jangar manuel nga ma borom baryeeru wooruwa koko le xaw ya ñu ngi ko lampam ya moo ndoxo mom moo mata naan tàndarma yi madina gën a neex woon ta siiwoo juma ben rak ba fa julli day wecc juni rakasa nur nurul ma yonen bi sabam ya nuyul ma yonen bi sabam ya nang ma dawa sa marwa naanal ma sa sam-sam ge sànnil wa jamra wa sinina Muhammad boo fa demee dañ lay soppi soppi sawtur nan la alaaji seex jaañ naar ba alaaji pap siin si jàlli dem ba seen lislaam bàkku na lu waay jàpp na beegan alaa kulu fatle yaay fadalaaw fa lawoo yeneen